defal ko wér kàttanal ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba mu liggéey ko ni ko sëriñ bi bëggee te ñu ànd koog moom ci barkeb sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di siyaara mboolem kilifay diine yi di leen ñaanal yàlla sunu borom sàmmal nu leen kàttanal leen ba li ñu yéene liggéeyal lislaam ñu liggéey ko ci barkeb sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di muslu ci saytaane di wax ansibillah minash ashaytani rajim ñu ngi ñaan suñu borom mu musal nu ci saytaane saytaane mom nga xamni ni dara du itteem ludul képp koo gis na ni am nga pas-pas ci sa ak sa borom wala nga am ko ci sa ak sa mbokk julit wala nga am ko ci sa ak sa mbokk ngir jaamu sa borom wala sakku aw yiw seytaane dina takk ay jàjjam dina la dogale dina jéem ci yow ngir bëreeg yow daaneel la ngir yàqal la sa pas-pas boobu kon ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu musal nu seytaane moom ndax bari na lépp lu ab jullit di yàqule te loxol seytaane mu nga ca biir kon yàlla nañu yàlla musal ci seytaane seytaane moomu nga xam ni borom bi subhanahu wa taala moo nu wax ni seenam noon la moo nu wax ni inna seytaana lakum àdduwun mubiin mu waxit ni fattaxisuhu àdduwan na ngeen ko jàppe noon kon ñu ngi koy ñaan mu musal nu ci noon boobu seytaane moomu nga xam ni mooy ki nga xam ni fekk na ay góor góori yàlla yoo xam ni dem nañu ba sen pas-pas sori lon ci sen digante ak sen borom mu lo len nax len ba yakal len bokk yi xam nge deg ngeen ku ñuy wax bersis jamu yalla bu mag la won seigne touba ng koy netti ci masalikul jinan bersis momla la yakal yakal ba tay wax nañu ni fi yàlla nañ ci yàlla musal e, gis ngeen balhaam balhaam ibnu baaxoor bi nga xam ni sëñ Tuubaa mu ngay wax ca mbiram di ñu ko nettali ngir bëgg ñu bàyyi xel seytaane wa soxna balhaam la si tabahara loolu sëñ Tuubaa mu ñu koy wax kon kooku nekkoon na nitu yàlla bu mag waaye seytaane moo ko karkarloo ba yàqal ko diggam ak boroom wa ay na xaatihi sajar ana jàmbaar jooju woon pas-pasam setané moko détourné kon ñu ngi ñaan yalla mu musal nu ci setané mom señ tubaa nak wax ni la taamunoo makaida setané qabla firaaxi ruuxi lil abdani señ tubaa wax ni bu len ko wolu mukk mom setané fek seen ruu yi mu ngi takalo ak seen yaram yi fek seen ruu yi ak seen yaram yi mu ni bu len wolu setané kon setané mom yalla nañ ci yalla ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax dinaay wax ni ku tedd ka Cheikh Saalihu Mbàkke soo mosaan toog ci moom ba muslu seytaane dikkal la boo nee ansu billaahi mina seytaani rajiim ci suuf daf lay waxaat ni la wax ko ca kaw kon seytaane moomu xam ngeen ni e, du koo xamante ni bii ku tuut la gis ngeen fi mu jaar rek Seydina Aadama ba waral foo mu nekkoon ñu dal ko fa muy àjjana mu sabab ak génnam suñu génn ñun ñépp ñëw tey fii ci àdduna ci coono yu bari yi yàlla nañu yàlla musal ci seytaane moom di ñaan sunu borom subhanahu wa mu won dëgg ba ñu xam ni lii mooy dëgg mu wërsëgale nu ñu topp ko allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna tibaaxa bi jaayi seydina muhammad sallallahu alayhi ndax dëggit na leen wóor ni lépp lu waay mën a nekk ak lu waay mën a am loola lu mu rëy rëy rëy rëy bu duwul dëgg ci suuf rek lay mujj ci suuf rek lay mujj du tekki dara ëllëg kon yàlla nañ yàlla woon yoonu dëgg te wërsëgale ñu ñu topp ko dëgg moomu nga xam ni moom la sëriñ Tuubaa di wax ni alxaq saabitun wa amal baatilu wa in xala fa saayiqun loolu sëriñ Tuubaa moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni aleykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila al bir wa anna al birra yahdi ila al janna dëgg mooy ki nga xam ni nee na mooy kii nga xam ni dafay nee maa ngi leen koy dénk mooy ki nga xam dafay gindi nit yóbbu ko ci mbaax ci buumug yàlla gi te bañ a teqalikoo ndax xam nga ni teqalikoo baaxul ci ay jullit kon yàlla nañ yàlla xiir ci ñu ànd nekk benn te mu sàmmal na sunu diine muni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni laa taxtalifoo fa inna man xablakum ixtalafu mu ni fa xalaku sallallahu alayhi wa sallam ni bu leen teqali ko ndax nee ñi leen fi jiitu woon ba ñu rek la ñu kon yàlla nañu yàlla musal ci juyoo mbokk yi borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa taawanu alal birri wa taqwa nañu ànd dimbalante ci loo xam ni lu neex yàlla la waaye wala taawanu alal ismi wal udwaan bis bu ne ñu di ko dégg ci rajo yeeg làmmiñ yeeg yépp waaye yàlla nañu yàlla wërsëgale ñu mën ko jëfe bokk yi eh, ku tedd ki xaadimu rasuul mu ngiy nettali di ñu jox ay jikko lenn ci jikkoy asaabi nabi sallallahu alayhi wa yi mu ngi wax ni ku ci mel ni Babacar Omar Ousmane Aliyun ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon seen ginnaaw waaye ñii daal ay nit lañu woon ñoo xam ni dañu daan yërëmante ci seen biir di ci dimbalante kenn musu ci yor benn goxu ndox gis ne sa moroom itte woo na ko te amul lu mu naan nga di ko naan mu seetaan ko